mi ex ay dex là alors ex c'est vrai que ñu jeexal yeewu leen bi ñëw bàyyi Evatra euh, Mami Diop ak euh, Ndoy Ban euh, pour li nga xam ne ni moo jëm ci li topp ci programme bi démb on n'a pas eu le temps tegal téléspectateur yi clip bu bees bu Kumba Gawlo bi exactement Buña ah, voilà Buña muy nekk donc defe naa ne mën a Euh, defe naa teg nañu ko avant ñuy euh, ah. démarrer suma jumulee <laughs> avant Cominex bi defe naa ah. bi ñu ko defee mais euh, ce serait bien ñu tegal ah. ko sénégalais yi ñu gis quand même une très belle vidéo donc Bougna donc Coumba Gawlo Seck sénégalais yëpp d'accord mm. c'est-à-dire que sénégalais yëpp d'accord c'est comme si aujourd'hui on revoit une nouvelle Coumba Gawlo mm. à travers la chanson et puis tamit tenue yi nga xamante ne sol na ko waaw machallah donc vraiment tenue ça la rajeunit et comme on dit elle reste très jeune dans la tête l'expérience rek moom mooy def différence merci Koumba pour cette très belle vidéo donc mën nañu ko seetaan dellu si ni makunya ni wari bibolo ni sanu bibolo ni lu bibolo obili bibolo hari ni ku bambali bite bulule ni mabunya ki kontela oh kontela

jabuña jabuña ni ma bunya hari ni haku bedi ni ma bunya ani tulungala ani tulungala ani tulung bunyale la ja bunyale nyohon très belle vidéo vidéo la bu rafet boo xamante ni ça a été hyper bien réalisé par nos amis euh, yu Gelongal donc Kumba Gawlo Bouña c'est un extrait de son nouvel album mu tuddee ko Terroir c'est magnifique c'est une belle production très belle production comme ni ñu ko euh, xamee rek Kumba euh, Gawlo professionnel dafa am nag foo xamante ni dafa génn qui fait la différence moom mooy gars yi dañ ko xamee ci kaw octave muy woy ci kaw mais bi dafa ñëw rek woy ci suuf et tout ça ak woy kook air bi <laughs> bili bolo <laughs> o boli bi bili bobili bili bolo yow léegi bolo yow <laughs> bobili bili bolo elo bolo bolo xam naa est-ce que boole wu ci ay saaga tamit est-ce que dégg nga lu muy làkk bëgg ñu woyal rek ñuy fekk bobili bolo est-ce que boole wu ci ay bobili bili bolo e bolo bolo waaye loolu bobili bolo rek yow ak yow bolo album rafet la macha allah yow daal saa yoo xëyee bobili bolo macha allah lu bobili bolo bu dee je t'aime la on t'aime bu dee la la bobi li bolo waaw bobi li bolo bolo day la belle la chanson. ah magnifique Coumba Gawlo vraiment. Ah euh, côté boobu nag moom la ñuy wax Pape Cheikh euh, toujours elle est restée elle-même une star euh, way et puis dafay baax parfois musique bi ñu jox ko beneen orientation parce que comme ñoom dañu nekk ci kanam aussi baax na xale yi tamit mën a gëstu c'est vrai mbalax bi et tout ça yëpp neex na mais mën nañ dem gëstu yeneen sonorité yokk ci mbalax bi parce que loolu mooy richesse su mbalax en tout cas merci Coumba Gawlo pour cette ah, très belle vidéo. yéen nag waa TFM da ngeen bañ Coumba Gawlo Seck doo leen yàqu ko tuuti. xali bi lii booloo. yow eh, man pare naa ci dégg nga bañ ko ba. yokkal yokkal yokkal mu lii daal. eh eh. c'est eh, une belle chanson ah. ah ouais je te jure. boo bili bili booloo. <laughs> dégg nga loolu. Oh, léegi mu wàcc xolam. laa ilaaha illallaah wax na lu rëy ma da war nga dégg làkk bi de ah guñaa gojo ba gojo guñaa. <laughs> yaa ko dégg jege na làkkam dëkkam. <laughs> Eh, yow lii lan la maa jàmm la. wallaay demandé yow maa woppoo. <laughs> créé ay sëqët. tay yow dama bi bobili bolo bi ko jàpp tay dama yëgu de rabu bobili bolo bi la jàpp di jar na repos médical un mois bon ben voilà donc c'est une toute nouvelle production sortie en format CD ak format euh, clé USB euh, Kumba Gawlo avec sa très belle voix euh, euh, le Sénégal des profondeurs c'est ça avec Sidex ouais exactement Pape donc je pense que fi ñuy daanele rek c'est toujours <coughs> ñuy bàyyi xel voilà donc que le Sénégal du Dakar kese mm. richesse su mbalax c'est d'enrichir la musique loolu mooy lu ñu avec beaucoup de son donc ñu dem visiter séeréer yi tout ça moom elle l'a fait et vraiment production la boo xamante ne sénégalais war nañ ko jënd pour découvrir ce qui se passe dans les profondeurs voilà. les instruments oui parce que tey boo di xoolee ni mu ko tëggee. soo demee si bi elle a elle a elle a utilisé le tokhoro. voilà tu connais voilà <laughs> mais. soo koy xool musique la boo xamante ne tey Guinée mën nañ ko fa fecc sous région bi yëpp mën ko fa parce que c'est africain mais en même temps tu vois euh, yenn rythme yi ci biir yoo xamante ne ça te rappelle évidemment le Sénégal mais c'est ça la musique en fait musique amul frontière Youssou Ndour way na ko c'est un voyage donc voilà donc un voyage boo xamante ne soxla woo visa ni passeport en tout cas félicitations Koumba mais voilà donc euh, on l'encourage c'est une belle euh, production euh,